prédécesseur Amadou Ba def ci déclaration de politique générale est-ce que tey mën nañu ko tënk foofu rek pour bañ a def déclaration de politique générale. bon Fatou Abdou ko waxee. je crois que monsieur moom am na benn explication boo xam ne ni def na ko par rapport en tout cas à la question initiale mais je crois que c'est un scandale en tout cas que au Sénégal. li nga xamante ne tey jii moom mooy suñu institution parlementaire bi nga xamante ni dafa am une fonction très très très importante une fonction primordiale qui consiste véritablement à légiférer mooy faire des lois mais au-delà de cette fonction primordiale bi nga xamante ni moom mooy légiférer moom moo am dayooy contrôler ce qu'on appelle l'action du gouvernement tey bu ñu demee tey ba nga xamante ni Sénégal ñi ngi wax ne am on a constaté du faux ci ay loi yoo xamante ni dafa nekk au de l'Assemblée nationale c'est une question en tout cas qui mérite qu'on limange en tout cas de notre institution parlementaire au niveau international mais bu situation bu mel noonu amee peut-être ñu ngi wax ne am na ay actes bari yoo xam ne jël nañ ci le premier ministre def na def ci déclaration de politique générale mais loi moom loi la c'est-à-dire lépp loo xamante ne ni jël nañ ko depuis temps bi nga xamante ne tey jii nii loi bi delluwaatul assemblée nationale ñu votewaat ko parce que en droit dafa am ce qu'on appelle le que ce qu'un décret a fait un décret peut le défaire ce qu'une loi a fait seule une loi peut la défaire à du moment où on avait utilisé la loi en tout cas pour supprimer yenn dispositions yi parce que le président de la république de l'époque avait jugé nécessaire de supprimer en tout cas li nga xam ne moom mooy poste premier ministre buñ delloose waatee restauré waatee poste boobu noonu l'attente la plus naturelle la plus normale mooy ñu delluwaatoon assemblée nationale procédure n'a pas été respectée juridiquement na nañoo constater ne lépp loo xamante ne ni Sénégal mës na ko jël ci dogal dafa nekk des actes illégaux des actes yoo xam ne day nekk en contradiction mais nga xam ne aujourd'hui koy def mais c'est ça la gravité et, oui. et c'est pourquoi même moi à parce travers... que ñoom quand même introduit une motion de censure moment boo xamante ne règlement intérieur bi c'était du faux muy les députés de Yewwi Askan Wi et je crois que même Fatou Abdou la gravité même de de notre part une analyse boo xamante ne bu ñu ko mënee jusqu'à son terme voilà des genres de situation yoo xamante ne war na nécessiter même une commission d'enquête parlementaire parce que boo xoolee boo xoolee Sénégal ay genre situation yi day am ñu discuter ci épiloguer épiloguer ci en longueur de journée mu nekk des situations yoo xam ne ça passe par perte et profit alors que c'est des situations yoo xamante ne day engagé wu en quelque sorte la République dans commencé def déclaration de politique générale yaakaar naa ne dañoo war a creuser au fond pour ñu xool pourquoi faux yi ñi nga xamante ne constaté nañ que ci règlement intérieur assemblée nationale moo am afin que ñi nga xamante ne ñoom ñoo laale ci loolu les responsables ñu mën ko situer bu fekkente ne ay sanctions dafa war dafa war a am ñu ñu ñu ñu teg sanctions yooyu. Mhm. et je crois que ce c'est même malsain def tey ji ay tooxi ba pare. ñu dem ba benn instant ils ont été rattrapés en tout cas par leur politique politicienne ñu bëgg a invoquer aujourd'hui or bi que le premier ministre est astreint en tout cas à faire sa déclaration de politique générale et je crois que monsieur Montaigne wax na ko à travers en tout cas sa sa sa sa prise de parole. mais mais foofu également est-ce que mën nañu jox la responsabilité. benn kan muy bennoo bi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon euh, peut-être le président de la République mënoon ko indi à l'Assemblée nationale te defu ko bàyyi les députés de Yewwi Askan Wi yi nga xam ne xamoon nañ ne c'est du faux et terewul ñu def ci motion de censure voté ci ay loi yëkkati ci loxo ne oui wala non. non la responsabilité elle est partagée c'est une responsabilité générale parce que boo déggee honorable mooy. il y avait que trois à quatre députés qui l'avaient dénoncé. c'est une respons c'est une c'est ce qu'on dit en droit une responsabilité solidairement partagée donc mënul nekk benn question boo xamante ne à partir du moment où même les députés de Yewwi Askan Wi étaient au nga xamante ne tey jii supprimé woon nañ poste boobu noonu bi ñu ko jaaruñu par la procédure en tout cas légale pour insérer waat les dispositions là je crois que nekkul leen na loo xamante ni da ngay incriminer les députés de Benno Bokk Yaakaar donc bëgg a seetal ñi nga xam ne moom mooy les députés Yewwi Askan donc c'est une responsabilité insurrégion une responsabilité partagée mais quand j'ai dit tout à l'heure que may incriminer en euh, en quelque sorte les députés de Benno Bokk Yaakaar mooy le fait que tey ñu bëgg kaa utiliser en tout de faire une déclaration de politique générale alors que les dispositions constitutionnelles en la matière ne militent pas en faveur d'un délai boo xamante ni Ousmane Sonko obligatoirement da cee war def sa déclaration de politique générale parce que quand on fait une glose ci disposition bu bu mhm. defee par exemple glose jàngat les dispositions yi nga xam ne moom mooy article cinq de la constitution dalay wax ne après sa nomination le premier ministre fait sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale mais disposition bi yamul foofu day wax ne cette déclaration de politique générale est suivie d'un débat qui peut donner lieu à un vote de confiance donc en de pareille occurrence li ngay jàngatee ci disposition bi mooy même bu fekkente ne la déclaration de politique générale est que constitution moom moo koy prévoir à raison de rappeler que constitution am na yenn précision yoo xamante ni du ko def parce que day décline juste les orientations générales il revient maintenant à la loi organique mu mu préciser le sens et le contour de la disposition constitutionnelle loi organique boobu noonu nag waroon na mën a préciser le sens de de de ces dispositions constitutionnelles wax na ne jusqu'à présent amatul mooy l'article quatre-vingt-neuf qui fait qui qui débat euh, de de quatre vingt de l'Assemblée nationale qui fait débat. Mm-hmm. et boo xoolee l'article dafa jox une faculté en tout cas au président de la République euh, au premier ministre à travers l'utilisation du verbe pouvoir parce que bu waxee par exemple après cette déclaration cette déclaration de politique générale donc il suffit d'un débat qui peut donner lieu. à un vote de confiance ça veut dire quoi même le premier ministre bu defee sa déclaration de politique générale ba pare il n'est pas obligé mu soumettre ñi nga xam ne moom mooy député yu vote de confiance boobu noonu parce que bu leen soumettre vote de confiance boobu il n'a pas une majorité confortable à l'Assemblée nationale c'est comme si il est dans une posture de se jeter dans la gueule du loup mën na entraîner en quelque sorte la motion de censure maintenant à partir du moment am mu soumettre vote de confiance boobu noonu bu ko neexee mën na ko def bu ko neexee mën na ko bañ def mais en ce qui concerne la déclaration de politique générale c'est une obligation imposée par la constitution mais amul benn délai boo xamante ni dans la situation factuelle imposé nañ ko Ousmane Sonko. pour que mu mën a janoo ak les députés de l'Assemblée nationale. Ahmadou alors Babacar Justin euh, ban jàngat aujourd'hui moom ngay def ci polémique bi ñeel cette déclaration de politique générale. Oh, il faut que ñu xool li nga xamante ne moom la ñu weesu. mooy booy xool tey euh, assemblée nationale bi nga xam ne moom lañ gàkkal. Mm-hmm. ne moo tax euh, premier ministre Ousmane Sonko mënul def foofu discours de politique générale même assemblée nationale boobu fa le ministre du budget war a dellu ce samedi même assemblée nationale boobu lañu ñu ay loi setal ay nit kon donc tey euh, premier ministre bu taxawee ne moom du dem jàkkaarloog askan bi ñi nga xam ne ñoo ko faloon et que ko ñi ko ñi nga xam ne euh, euh, gisuñu ko fal ko ak ñeneen ñi nga xamante ne amoon ci amoon nañ ci moom yaakaar votel ko tey dafa am obligation wax leen ay orientation politique am fan la koy def affaire bi c'est simple da ngay toog wax sénégalais yi ne leen man tey fii laa bëgg a jëmale askan bi lii ak lii moo nekk les grands points yi nga xam ne moom la war a jël parce que man je pense que le débat euh, juridique ça devrait être même dépassé en ce sens juste par par par non seulement par élégance mais aussi par obligation mais aussi par respect au niveau tout simplement de la constitution parce que ñu ngi xamal sànq nañu Euh, obligation institutionnelle la boo xam ne le premier ministre da ko war a def mais léegi tey le premier ministre s'il s'est permis de dire parce que euh, si euh, si le petit mort a dit quelque chose il l'a entendu sous la tente député yeewi askan bi majoritairement booy xool particulièrement ñoom ñëpp ñu ci jël les grands les grandes décisions taxaw wax en face du peuple booy xool ñooñu noonu ce sont des députés de Pastef